Sidia Ndiaye, euh, secrétaire général Fédération général euh, générale des travailleurs du euh, Sénégal FGTS ñu ngi lay nuyu. merci maa ngi leen di fay bu baax. Mhm. tey jii FGTS ngeen ñaar ñu amal délégation spéciale ci collectivité territoriale yi lu waral boobu la ñaar. mais lu ko waral mooy Elisabeth Kabir yaa xëy ci boo sa mandat cinq ans mu jeex ñu am na problème nañ ko prolongé ñu kenn waxul nga ñam loolu nga ne encore dañ koy reporté waat. bëgg a jël ay loi imposé ko ci kaw askan bi te nga xam ne élus locaux yi maanaam ñi nekk ci mairie yi nekk ci collectivités départementaux yi dañ leen fal comme ni ñuy falee président de la République ci suffrage universel mm-hmm. lañ leen fale donc euh, askan bi moom moom baat bi mais dañ ko war a delloo mais mënuñu nag chaque fois di def euh, acte yu mel nii di reporter di reporter kenn xamul kañ la jëm parce que dañu ne janvier début dañ koy def te man dama yaakaar ne législative yi nga xam ne ñooy ñëw boo ootul dinañ koy dinañ ko rende di encore boobu loolu lu muy niroo mooy coup d'état ah lii coup d'état rek la nekk contre population bi contre suffrage universel parce que adduna bi yëpp malgré que pandémie baa ngi fi ñu ngi organiser ay élection démb rek beneen def nañu seen élection Pérou ak yeneen ak Équateur gis nañu ay élection France bi temps yële def na fi élection municipale lu tax Sénégal mënul organiser lu tax Sénégal nangul respecté calendrier républicain loolu nag état lay interpellé état calendrier dafa duñu ay caaxaan buñ la falee diir la da nga war a dem bu dee demoon nag ñu def délégation spéciale lan moo fi indi woon amendement Moussa Sy amendement Moussa Sy Abdoulaye ñëwee dafa ne woon maire yi comme seen mandat génn te damay reporté élection yi. Mhm. conséquence bi mooy dañuy dissoudre collectivité locale yépp ñu def fi ay délégation spéciale loolu la yoon wax. Mhm. te yooyu code bi prévoir na ko donc nañ ko def yemale ñëpp na ñëpp delloo seen mandat ñu préparé élection yi a te loolu mooy aar institution parce que ñun liggéeykat yi dañoo sonn ci ay exécutif yoo xamante ne defuñu fi dara pour travailleurs yi non seulement defuñu fi dara mais dañuy nargué nit ñi di licencier nu mu leen neexee di def gestion yaa ma neex nu mu leen neexee personnel bi te loolu dafa doy donc vraiment nañu dem yóbbaale seen mandat yi bu leen yàlla mooy askan bi wóoruwaat leen ñu ñëwaat mais toog bi di di di ah juróom a ñaari at loolu fan la fan laa ne. ndax motif yi ñu joxe dàq élection yi dalul xel wala doyul. man motif lañ joxe. élection dafay bëri Sénégal ak it xaalis bi ñu ngi jóge ci mbas. te it dialogue bi dialogue politique bi pareegul. donc motif yi bëri na. xaalis bu ñu ko bëggee génne ko génne yi ngeen fan ñu ne jeunes yi bi problème jeunes yi posé ñu ne dañuy génne quatre cent ko jëlee ma ne nañu bay waxi caaxaan yooyu élection calendrier républicain la. Sénégal dafa nekk république dafa nekk pays normal donc Sénégal dafa am li ñu naan budget élection ku koy def da ngay prévoir dans le budget boo ko bindee ci budget bi inscription la bu affaire bi jotee nga def ko loolu mooy yoon mais di taxaw bi naan amuñu xaalis yi dafa bari élection loolu loolu ñoo koy apprécier yow nga dem ba toog ñu fal la ba pare léegi nag <clears throat> lu la neex ngay def ko mais loolu tant que jeexul du sotti moo tax beneen nasaraan dafa bind ne mm-hmm. pour que ñu bañ a abuser pouvoir moo war a arrêter pouvoir parce que bu ñu deful ay garde-fou ay barrière lu neex waaye boo jotee ci affaire bi rek dafa mel ni nga jël escalier échelle nga ne damay yéeg gi gi benn affaire la ñuy teg fële ci kaw. Mhm. man rek maa ci war a jot nga jël escalier bi nga dem ba foofu ba nga eggee foofu jël li fa neexee yëpp lu fa neex yëpp nga jël ko nga puus escalier bi sànni ko fële ma ne léegi kenn dootul mun jot ci escalier bi waaye kenn du la fekkee fi nga toog mais loolu loolu dafa ñaaw. donc nañu wante dëgg fii li ñun defuñu ko pour xas defuñu ko pour dara dañu ne nañu respecté nit ñun defuñu jinne jàppuñu ñun xam nañ nu mu demee nañu bay diir yooyu ñu def ay baara yéegoo dong la ah déggoo ci kaw askan bi di nodd nit ñi def loolu moo war a jeex. kan daal ma la déggee ngay wax dafa me ni code électoral amatu fi benn solo euh, classe politique bi ñoom daal ñooy wax. ana nan ak kañ la ñuy teg élection mais ñoom ñoo déggoo da nga déggee da nga ñoo déggoo ñoo nekk seen biir di manœuvrer pour que li ñu bëgg moo am loolu na moo war a jeex ñoom moomuñu nit ñi dañoo moomul nit ñi laa wax ne sama baat ci kaw nañu respecté askan bi ñoom ñoo leen fi teg duñu dara sans askan bi il faut que mu leer tant que loolu leeru lu neex waaye def loolu moo war a jeex Sénégal du moomeel nañ ko teg ci yoon respecté charte réew mi demuñu ko ñu ngi def leneen loo xamante ne coup d'état laa ko tuddee sama baat ci kaw. tey jii monsieur Ndiaye liggéeykatu euh, collectivité euh, locale yi territoriales yi laa mën a wax sax ñoom nan la ñu euh, wala ban conséquence la yokku mandat maire yi di am si ñoom. non xam nga dama ne mandat yi jeex na. Mhm. donc comme mandat yi jeex na ñun liggéeykat yi mooy nañu teg loo xam ne ay kuréel yi ah ay responsable yoo xam ne mën nañu gérer. xaalis yi nga ne fonds de dotation ak yeneen fonds yi nga xam ne mhm. pour que ñoom ñu gérer ko mu jaar ci yoon ñu bañ a jóg bay ko ci loxo politicien def lu leen neex waa waare seen campagne électorale parce que loolu bu amee kenn du ko mën a contrôler mm-hmm. donc ñun dañuy menacer wu chaque fois dañuy gis ne élection buy jot euh, responsable bi nga xam ne moo fi nekk muy maire muy président département mu wóor ko ne moom du faluwaat amoon nag sañ-sañ jalgati xaalis yépp def lu ko neex pour que ki euh, koy bu ñëwee du fi fekk dara loolu amoon na fii acte trois bu ñu ko defee bu ñu defee élection ñu pare am na maire yoo xamante ne fii ñu si Dakar mënuñu woon fay sa salaire yi loolu tax parce que budget bi taal nañ ko en quelques mois ñu taal budget bi loolu loo ci mën loo ci mën mais lu tax ñu pour ñu préserver loolu nag prédation boobu ay prédateurs pour ñu arrêter leen il faut ñu teg ay charte yoo xamante ne dina aar maire yi dana ar département yi loolu moo tax ma ne délégation moo ñuy permettre ñu aar suñu institution yi parce que maire yi institution publique la waruñu ko maire yi ñu leen di fal gox goxaan yi ñoom ñoo nekk ak responsable mhm. te boo xoolee maire yu bëri nekkuñu Dakar ñu ngi ñu nekkuñu seen gox ñu ngi tëdd Dakar bi rek téléphone rek la ñuy liggéey di woote seen secrétaire municipal lan moo xew kii quoi lu xaalis bu amee ñu am naka lañ koy rëbëjee donc loolu moo war a jeex il faut que askan wi tamit yeewu ñi ñuy fal maire ak nañu nekk ci gox bi di yeew ak ñoom foofu tant que demuñu loolu affaire yi du dox. dañuy wax acte a di théoriser lu nekk ah territorialisation des politiques publiques ah te loolu amul benn sens pour nga territorialiser politique publique yi il faut que ànd na moom nga associé lii di askan bi lii di jeunes yi lii di travailleurs yi. et justement ci politique publique yooyu ngay wax AMS ci assemblée générale bu mujj nee na nag collectivité territoriale yi dañ ko war a def seen moomeel su ko defee ñu gën a jàppale askan wi loo yaakaar ci boobu la résolution. Euh, affaire bi mënul nekk moomeel. affaire bi yow da ngay jël mandat contrat à durée déterminée da am sa programme ñu ñëw fal na ci kaw programme moom ngay déroulé ba askan bi ci seen bopp li ngay def te mairie ak dafa am état compétence yu mu transféré bokk na ci éducation santé ak yeneen secteur mhm. pour ñu jàppale askan bi mais boo defee enquête yenn journaliste ngeen indépendant nga xool yi maanaam ñoom population est nañ seen bopp ci li nga xam ne moom la ñuy doxal mais di nga dëgg réponse bi ma ñu bëri ñemewu ñu tey dem bokk ci base ba parce ñoom dañ leen dañ leen dañ leen vomir liggéey ñu fi liggéey boo xamante ne war nañ leen mën a maintenir comme ça ñu continuer di gérer donc nañu delloo mandat yi su ko defee indi introduire clause délégation spéciale. Mm-hmm. loolu mooy la garantie que nous serons ñu ngi ci système démocratique loolu mooy garantie que nit ñi dañ leen yemale loolu mooy garantir que képp ku bëgg a dem élection sa moyen bopp ngay teg ak moyen yu la population jox ak ñu la wóolu pour nga mën a ñëw en tout cas diriger bi. ngay vice président And Gueusseum euh, bu yàggul dégg nañ leen ngeen jóg yëkkati seen baat ci accord yi nga xam ne respecté ñu ko euh, tey jii ngeen xamle woon ne tamit di ngeen déposer préavis de grève fu mu toll. waaw tey jii Baro Dia Dia président alliance bi euh, woon na ma sànq ne ma déposé nañ préavis bi ko. donc le douze déposé nañ ko ci yeneen. ministère sectoriel. Mmh. donc à partir d'aujourd'hui le compte à rebours a commencé maanaam ànd gësam bu matee weer. boo compté tey am na sañ-sañ la ko yoon may muy droit de grève mu exercer ak yenn activité boobu nag fan yi di ñëw dinañu dajewaat directoire bi pour ñu xool plan d'action ban la ñuy tëral pour ñu xool ndax campagne d'information de sensibilisation pour que ni ñi xam ne contexte Covid bi ñu nekk ni naka la ñuy organiser pour que suñu xeex bi mën a am portée boo xam ne tamit dinañu permettre ñu am ay acquis tey ànd ak sëb xam ngeen ni temps yële passé dafa newoon du weer na ngànnaay yi mais xam na fu mu fu mu denc ngànnaay yi hmm. pourquoi parce que pandémie bi bu muy commencé ñun dañu ne nañu bay yëpp revendication yëpp ñu teg ko ci suuf jàppale askan bi parce que tey pandémie bi yëpp la te ñëpp la jaaxle hmm. nañ ko mais nañ ne ba tey avancement amul ci lu ñuy def bokk na ci sax li nga xamante ne moo kon a yomb mooy prime bi nga waroon jox Covid ñu tuddee ko prime Covid war ko jox liggéeykat yi ñu nga jox ko ñii bay ñii par parloo te kenn jox awul explication pour ñu wax ñu lu dox feeñu nii te njiit réew mi moom dégg jox na xaalis pour loolu donc ñun loolu moo tax ñu ne euh, ak sans compter maintenant ci préavis bi def nañu bu affaire technicien supérieur yi nga xam te depuis deux mille dix huit seen dossier yi pare na décret depuis deux mille dix huit ba léegi mënul génn nga dem ci collectivités locales yi fonction publique locale depuis deux mai mars deux mille onze voté nañu loi mais ba tey décret yi mënul pare ñaari décret rek moo des dix ans yaa ngi xaar décret yi dañu bëri sax dem nañu à la retraite mënuñu bénéficier ci moom sax produit boobu donc ma yaakaar ne vraiment état moom lu mu bëgg mu koy def parce que moom mu ngi nii pour loi bi fan yi rek di ngeen gis ñu génne loi la la ñu mandat yi mais pour suñu décret yi ak lii kat santé ak ñeneen ñi toppatoo ñu leen donc ñun xanaa ñun bokk ñu Sénégal pour ñu gérer dëkk bi pour ñu gérer suñuy intérêt ñoom lu leen neex la ñuy def gestion yaama neex moo fi nekk par parloo injustice mu kenn xamul lan la nga da ngay dem tribunal en tant que travailleur nga gagné sa procès ñu jox la dëkk nga ñëw ñu ne duñ ko appliqué loolu ban dëkk la ban justice la justice à deux vitesses ñoom lu leen arrangé ñu ngi koy def te lu lu arrangé population yi duñ ko def donc vraiment Sénégal li ñu war a wax dafa bëri xol bi dafa fees à la limite mm-hmm. parce que injustice gestion yaa ma nekk bu fi nekk dafa doy on ne peut pas continuer comme ça nañu changer paradigme yi maanaam ñu def en sorte que ñu jël en compte li nga ne askan bi moom loolu moo ko intéressé. ci fàttali rek monsieur Ndiaye yéen moo nekk ci plateforme bi tey nga xam ne bokk na ci accord yi ngeen xaatimoon ba tey euh, kenn saafaralu. waaw plateforme bi wax naa la léegi technicien supérieur seen décret d' application yi. Mhm. Euh, fonction publique communale am na ñaari décret yoo xam ne boobu décret bu nga xam ne mooy jël encore le cadre de fonctionnement de local ak décret buy créé benn structure bu mel ni direction de la fonction publique territoriale loolu tamit pour gestion des carrières des fonctionnaires bokk ci aussi retraite à cent cinq ans parce que ñoom dañoo jël mesure ne médecins yi infirmiers yi ak pharmaciens yi médecins yi infirmiers ak euh, dentistes yi ñoom ñuy bénéficier soixante moo ëpp téeméeri yoon a ah, euh, corps médical te système bi pour mu dox il faut que corps bi dugal ci loxo mu loxoom wala vaccination bi rek corps paramédical bu arrêté woon vaccination bi day dem c'est pas du médecin ñooy vacciné mënuñu vacciné xamuñu ko donc vraiment nañu góorgóorlu ba yemaleen nit ñi loolu la ñu wax ñun injustice ak division loolu du jàll moo tax plateforme boo ko xoolee yooyu point ñu nga fa ñu ne aussi régime indemnitaire nguur gi moo ne dafa commandité woon benn étude pour yamale ni ñi ci fonction publique parce que dafa am ay disparité yu bëri ñii am na nañu xaalis mu dul ñi ñii amuñu dara fan yi dégg ngeen sax waa agriculture di xeex ne ñoom amuñu dara en tant que fonctionnaire de l'État ils n'ont aucun avantage donc état bi dafa demoon étude boobu bu pare dina toog ak nit ñi ñu wax naka la ñuy def pour rééquilibrer ah même enseignants yi ay doon loolu la ñu wax mais actuellement nii kenn xamul dossier bi fan la ñu ko dugal def nañu ay étude ba pare defuñu fi dara. donc loolu aussi ñu ngi demandé en tout cas ñun hausse indemnité yi nga xamante ne mooy risque bi ak hausse indemnité itinérant pour que ñu mën a mettre li à des même niveau pour que ñoom aussi ñu mën a gis seen bopp li nga xamante ne mooy augmentation yi ñu waxoon danañ ko def ci fonctionnalité ba léegi ñu ngi koy xaar ay at at dara dara xew régime bi daal lu ñu mën a xam mooy que pour corps paramédical defu fi dara ñu ngi ñu ngi rafetlu le fait que def nañu pour médecin yi ak yeneen corps yi catégorie médicale bi uh-huh. mais pour corps paramédical zéro zéro ak zéro maa sama baat ci kaw sept ans zéro ak yi pour le corps paramédical et le administration donc loolu moo tax ñu fu mu nekk nii dañuy obligé mobiliser waat pour que ñu dégg ñu. Uh-huh. Euh, ñu mën a jël en compte nos préoccupations système bi mën a dox. jamono ñee ngi dellu suñu liggéey ñun liggéey rek la ñu xam. Mhm. xamuñu leneen waaye dilatoire ah boo kii préavis bi duñu la faale déposé nañ tey dégg ngeen ko ñëpp yëg nañ ko mais préavis bi dinañ ko bàyyi mu daw mu daw ba mu des ñaari fan ñu woo leen ne kaay négocier <laughs> te loolu yoon wax ko yoon dafa ne boo déposé rek ñoom war na jël seen matukaay maximum waru passé trois quatre jours ou cinq jours woote ay ndaje ñu xool naka dañuy problème mais dañuy toog ba dernier minute yow boo demee grève ñu bëgg a def ay pourrissement loolu nag c'est la responsabilité. personnel qui est engagé c'est il appartient gouvernement ministère de la santé ministère de la fonction publique nga xamante ne yi mais loolu lañu xam réew dafay am syndicat bu amee syndicat aussi syndicat day plateforme syndicat mooy indi progrès progrès social syndicat rek moo ko mën a indi mais pour progrès am il faut que ñu respecter nii mhm. mais mënoo def boo defee sa plateforme war a kii ñu pousser la pousser la pousser la ba dernier minute nga xeex te boobu ci mbas bi ñi commencé naan way ñii xanaa xaalis rek la ñuy wax ah ñoom ni ñaa ngi nii feebar bi extra ñun dañuy def xam nañ ko bu baax yéen dégg ngeen fan yi paase yëpp ñun waxuñu dara dañuy toog rek di liggéey. sëga di liggéey boo tax résultat yi ñu am sax. Mhm. maa ngi profité di remercier bépp agent bi nekk ci front bi di xeex ak Covid bi parce que résultat yi wane ne ñun taxaw nañu tem pour jàkkaarloo ak suñu responsabilité assumé ko. mais de l'autre côté nañu def noonu respecté nit ñi jox nit ñi cër lu ñu moom sawaay nañ ñu ko jox bu ñu ko joxul nag dañuy gësëm bu baax a baax ba ñu xam ne ñun ñi gësam nañ ñu jox ñoom ñoo comme seen tur <laughs> ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, monsieur Ndiaye Sidya euh, jiite FGTS doon tamit vice-président ànd gësam merci